asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah jeudi 6 août 2020 ñëw ak yéen ci yëglikaay yi làmb la ñuy xëy tey dooreeti ko yëglikaay bi nag tey moom dafa xëy ñëw ci Rock Énergie daal moom la xëy tey topp ko ci ab jàngat ci saison bii nga xam ne nii moom la ñu nekkoon te corona bi taxawal ko ka def jàngat ba nag du kenn ko ki nga xam ne moo di Boubacar Niang yëglikaay ba daal wala xalimaam daal lam ñu ci xëy bindal daal wan nañu Modou Lo Boy Sine Dame Souguer numéro 2 Laye Pythagore ba ci Petit Lo ak seenub entraîneur di Pape Mbaye waaye yëglikaay ba daal lam ñu xamal daal ne na écrit ba daal boo bëggee dégg dëgg moom benn victoire la ñu am maanaam benn victoire daal lañ jotagoo am wala boog ak itam lu toll ci juróom benn défaite maanaam six défaite mel ni kon yëglikaay bi jàpp na ne Rock Énergie moom daal la nekk amul batal bu ne ci biir géej moom dañ naan fi mu nekk nii day daa mel ni suux xaw na koo jege ndax mbir ya moom doxul bu amee ko fay doxal moom kenn képp la muy roi des arènes ba di Modou Lo moom daal moo ciy mbër moo xam ne nii jàppal bu dee forêt bi la wala bu jugu àll bi moom moom bu doon garab la moo fay meññ wala boog moo fay jaagu mbaan waaye ña des moom mënuñoo gis combat ak ay bët moo xam ña topp ca moom la ak ña leen gën a suufee mu mel ni ki daal écrit booba moom boo bëggee dégg-dëgg seeni mbir moom dox defu ko yëglikaay bi suñu làmb xëy tey ñoom wax nu ko ci gëstoob ka nga xam ne moo di Boubacar Niang Pape Mbaye ma leen di tàggat nag moom la mu jàpp daal ne na ñoom ñëpp daal ne na mbir mi moom laajaat na ay question maanaam daal ay laaj la ca xëy na jàpp na ñu laajat ko ci xool mbir ma lu koy doxal loolu mooy ay waxam leneen loo xam ne nii mu ngi ci yëglikaay bi ak keneen koo xam ne ni mu nga ca di wax muy ki nga xam ne mooy Tafa Kanji kook nag moom mooy agent booy ñang numéro de bu déggool yore tamit wàllum communication la mu xëy di wax nag wala xamu xamu xëy di ko afo mooy Tafa Tine bu bawal ka la ko Abdou Kanji wax boog wala la ko Tafa Kanji wax lenn la ne na ko Tafa jàppal lii ma lay wax te bañ koo fooy jàppal ne booy ñang moom sa avance bi mu lekk li mu ci jublu du lenn lu dul daan la leneen lu kànjine na ko ñu ngi lay nax daan la kese kese la ñu bëgg tey itam duñ ci jóg tey suba waxi noppi te nu ngay def luy tax ñu daan la kon booye bu nga jàpp loolu yaag say mbokk mu mel ni tafaa kànji tafaatin la xëy tey di ko dànkaafu ci yëglikaay ba nga xam ne moo di sunu làmb ba tey bu ñu continuer ci yëglikaay boobu daa mel ni ki nag moom boo bëggee dégg-dégg lii nga xam ne daal ñoom ñooy télé yi maanaam télé yi ci réew mi daa mel ni ñoom itam day fi mu nekk nii dañoo ngemb ba dëgër ngir fas defante ci anne bii jëm jëmale ko saison ba nga xam ne mooy jàpp 2020 jàpp 2021 ndax nag bu dee 2STV la wala muy TFM ITV ba ca RTS ku ne am na ñoo xam ne ni yaa nga lëngaloo ak ñoom wala yaa nga lëngoo ak ñoom ci ay promoteur fas yéenee dem mu mel ni ki nag jàppal ña nga xam ne ñi ñoom ñoo di waa ITV ku ne gis na ne ko waa Abdou am nañu contrat boo xam ne bu leen liyee la jëm ci combat Siteu ak Papa Sow TFM ku ne gis nañ seen diggante woon ak jamaïcain yemuñu ca tey ñu xëy taxawal seen bopp combat fas yéene tamit ñëw dugg bu baax a baax 2STV moom ku ne gis na seen diggante ak nga xam ne ni ñoom ñoom ñoo di jéy seen mu mel ni ki ñoom tamit jàppal ca loola la ñu fas yéene nekk mu mel ni ki nag yëglikaay ba daal la mu ñu jàngatal mooy te xalim ak Abdoulaye Dembélé daa mel ni ki nag ñoom xëy na site internet ya nga xam ne nekk nañ fi di def làmb cent pour cent daa mel ni ki daal ñoom la ñu bëgg ñëw nag njàpp maanaam daal dafanteeg ñoom bu baax a baax a baax wan leen ne tamit ñoom ñu ngi fi xëli ndéef lañu gëmm nañu waaye nelawuñu loolu yëglikaay bi ñoom ki nga xam ne nii mooy kool bu sab ak Pape Thiam bu Géejawaay daal la ñu taxawal démb waaye leneen loo xam ne nii dañuy dem fekk ko fa nga xam ne nii moom moo di ci bi ba tey bu ñu duggee ba ca biir a biir mel ni ki ki nga xam ne nii moom moo di xeeru ngor numéro 2 fi muy jaar ba diggante wala bokk fi muy jaar ba wanaat boppam wala confirmé ci combat bi ko booleeg booy jóg bi xëy na tey ñëw ci lu mel ni ki noonu Samba Ndeleng numéro 2 moom yëglikaay bi na léegi nag dugg na ca li nga xam ne nii moom moo di MMA ba ginnaaw ba mu kawatee ki nga xam ne nii moom moo di jàppal ka nga xam ne moo di Boy Kassa moom Samba Ndeleng léegi mu nga ca LM MMA ba loolu la mu yëglikaay bi xëy wax bu ñu fa jógee dañuy dem fa nga xam ne nii moo di ca journal bi di record record nag moom tey Modou Lo la mu xëy toppal moom Abou Ndour ci Modou Lo ak i kombaam 24 kombaam la nga xam ne ni am na ko ci ay défaite ak la mu am ci match nii ak ramassé nga xam ne bëre na ko Modou daal ba mu débuté ba tey ni mu nekk roi des arènes mu mel ni kii nag yëglikaay bi daa jàpp ne quatre-vingt pour cent quatre-vingt-trois pour cent de réussite ci carrière la def mu mel ni kii daal kon Modou Lo ba mu ne sax ci làmb ji commencé bëre la mu jàppoon wala ku ko gis te amul xam-xam di nga jàpp ne kii daal roi des arènes dong fa la war a mën a dem parce que nag loolu la mas di wane ci biir làmb ji ba tey mu nekk roi maanaam yëglikaay ba xëy tey xam ne ni moom moo di mu mel ni Pape Mbaye ma nga xam ne nag moo koy tàggat moom itam wax na ca wala moo débuté ak moom wax na ci mbiri Modou Lo waaye yëglikaay ba na ne a nekk na du xëy na wax nu ko mu mel ni nag ay victoire am toll na ci vingt la nga xam ne nii moo di ay defatam toll ci trois ak benn match nil boo xam ne am na ko ci làmb yëglikaay ba xëy tey ñëw toppal ñu ko am na leneen loo xam ne tamit dañuy dem waxi ca wala ñu toppi ko mu mel ni nag ki nga xam ne Papa Yade ginnaaw ba mu génnee àddina ñu denc ko dënk maanaam jébbal ko boromam Leewtoo TV démb demoon na fa way juróom mu góor ay rakkam ay papaam ña mu bokkaloon écrit ak waa koñ baak ña mu doon liggéeyandool ku nekk génn nga def ci moom ay témoignage jàpp ne daal kala la boo xam ne bu bëggoon mbokk la bu déggaloon way juróom bu nangoon a sonn tamit waaye bu boo xam ne nii amoon jàmm ak ñëpp mbiri ñëpp jaraloon na ko bàyyi ay mbiram maanaam ngir taxaw ay doomu aadama mel ni kenn daal seere sa rafet na te ndax nag yàllaa nu ko sam nit ki bu faatoo moom lépp la nga xam ci moom ci lu baax wax ko loolu defe naa ni ngëneel lay doon yërmande lay doon kon la ñuy ñaanaat rek mooy la ñu ñaanoon dem yàlla na ko yàlla jéggal yërëm ko xare ko aljana moog bépp jullit boo xam ne tëdd nga ci suuf parce que nag loolu moo fi nekk rek kullu nafsin saa yi xatin mawtin du mu jóg ci di ko wax ndax yàllaa ko wax ku juddu da nga dee waaye bakkan bu ñam dund tam faw nga ñam dee rek waaye Mansour saabu yu ñëw yàlla nañu fekk ci lu neex yàlla tey ànd ak yërmande suñu borom barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk waa Leewtoo TV ñu leen gërëm di leen di leen sant Babacar ngeen àndoon si revue de l'arène bi nu ànd ak yéen si jàngatu arène bi Babacar maa la lay nuyu di la ziar. fay naa la Ndeye Coumba Fall maa ngi lay delloo ziar. maam nga jàmm Babacar tey seen seen nga de. foo jaar sa dàll yi dàll yi Abdou Sakho la Abdou Sakho. Abdou Sakho doomu ndeyu Modou Lo ca Petersen di commerçant bu mag moo fi jaar de gis nga daal yi ma daal di été yi ma jox mm. ma koy nuyu di profité di nuyu waa Petersen bi yëpp moom sama xarit la sama gayen la eh yow maa su jëlee samay daal man tamit waaw ah, yow daay nga def <laughs> dafa tàng moo tax il faut ma def été tamit mu ma sol ay basket gis nga c'est normal waaw c'est normal nag borom tànk yu baax nag moom soo amee tànk yu leer moom foo doon leer nga sol ay tànku naar nga yor macha ñëw ak yéen bi <laughs> di commencé nag ak sunu laam sunu laam na dafa ñëw si rock énergie nag rock énergie nee ñu nag ñoom nañuy suux suux bu méttee métti comme Batalo Jola ndax benn victoire la ñu am ak six défaites Babacar waaw muy loo xam ne day lu doy waar la résultat moom baaxul boo xoolee parce que combat yi bariwul benn défaites yi bari na trop benn victoire ngay gis ak six défaites mu mel ni kon defe naa ne ab liggéey waraat na leen parce que nag Rock Énergie bi ñu ko sancee yàggul mais wax dëgg yàlla am na ñu tey eh, maanaam lu nga xam ne nii ci écrit bu yàggul am ko jafe na muy roi des arènes tamit wane ay champion yu bare bare bare bari ci làmb ji waaye nag dafa am loo xam ne nii moom ah euh, des fois nag nga dem ba ci kaw mais des fois nga dem ba benn moment mu am ay difficulté yaa ngi dégg loolu nag am na lu ko indi defe naa ne ak tey seen staff bi ñu yoree ak seen njiit bu bees bi ñu amee muy xaadim nga jag ak li wër écrit bi yëpp defe naa lii war nañ ci def jàngat xoolaat ñoom naka la ñuy def pour mën a relancer waat écrit bi pour mën am yeneen Modou parce que Modou Lo euh, ëllëg tey ma dama naan mu ci sommet wu lamb ji parce que ku dem ba nekk roi des arènes pour man amatuloo looy prouver si lamb kon nag defe naa ne tey li des mooy ñu fexaat yeneen muut loo am sécurité ba loolu nag dafay dépendre ci staff bi mais day dépendre tamit ci ñi ñuy tàggat day dépendre ci ñi ñuy tàggat ndax ñoom joxe nañu seen bopp comme ni ko Modou Lo defoon ba ñu war a mën a def ci ñoom li ñu war a def ci ñoom. Ah, te ñoom sax war nañu euh, roy sax ci nga xam ni ay écurie mag la woon te nga xam ne seen leader bi mu demee moom écurie bi dafa naax saay maanaam maanaam bu dee écurie Alpulaar la mu defe naa ne mën nañ ne existé tul ci li ñu xam déggatuñ fa mbër mu bëree mm. bul faale sax xëy ñu ngi bëree donte combat yi mm. mais xëy doole bi mu amoon bi fa Tyson di amatu ko mm. écurie Ndakaaru itam euh, mën naa ne moo moo tane ñaari écurie yële parce que écurie Ndakaaru ay xale nga fa di bëre di wane seen bopp mais xëy na la fa la Yékini doon def wala na mu na fa Yékini nekke woon loolu amatu ak ñi newoon ci ginnaaw loolu nag li koy waral mooy liggéey liggéey boobu nag day nekk lu nga xam ne du nekk loo xam ne comme ni ñu koy waxee court du doon lu gàtt lu gudd lay doon ab liggéey bu yàgg a yàgg la laaj ak itam xale ya fa ñëw bëgg a nekk ay champion bañ a teel a nangoo jël jël kaala gi def ko ci bopp bi ndey kumba kaala ci ndig lay njëkkee mm. a dem ci bopp nga door koo yéegal mm. waaye nag soo bëggee jël kaala gi léegi-léegi teg ko ci bopp bi te warewul romb ndigi li problème rek ngay indi mm-hmm. kon problème boobu nag moom la moom la euh, pambay ne ñoom na dañu war a xoolaat seen bopp suñu bëggee écurie bi yéegaat ci kaw waaw xoolaat mooy li ma la wax xoolaat bi moom moom miiri di bi moom am na ca wàll directeur technique ba am na ci wàll président CRI ba am nañ ci wàll supporters yi am nañ ci wàll mbër yi am nañ ci wàll ku ci ne rôle ba nga war a taxawee da koy jéem a taxawee parce que loolu moo war écrit yëpp ba nga xam ne tey écrit bu ci ne bu fa Modou Lo nekkee am Balla Gaye am seenam Gris Bordeaux ak nangam ak sàngam mhm. tamit ñu xam ki nga xam ne mooy Tafa Kañ nekk chargé de moom dafa am yaakaar ni. am na gëm-gëm ne moom euh, mërëm kii di euh, mërëm di Boy Niang dina daan ki nga xam ne moom may Tapha Tine waaw loolu de defe naa ne mooy li naan géej jàmm na ndox rek defe naa mbër mu jël sa avance loolu Tapha Kandji wax moom defe naa ne wax ju leer la képp ku jël avance am ku ne damaa yaakaar ne la tax nga jël ko mooy jàpp nga ne am nga ay xam-xam am nga xam-xam wala nga am xelaat ak liggéey bu toll ne war nga ko mën a daan defe naa loolu bokk na ci li tax ngay jël sa avance adversaire Boy Niang defe naa ne bu jëlee tey avance Tafatine jóge ci Lac de Guiers numéro jël Tafatine kon defe naa ne xelam xelaatam la ca nekk muy bëreeg Tafatine daan ko defe naa waxi kanji joj moom wax ju leeral leer la waaye nag daan ba ak bañ baa daan loolu moom si kàttanu yàlla yàlla nañ nañ ko fekkee ñoom euh, saison prochaine su ubbee ñoom ñëpp am nañu promoteur ndax promoteur bu nekk am nga télé boo signal Babacar. waa mu mel ni dañu woon 2S ITV TFM RTS. waaw mu mel ni kon bu dee ITV la ku ne gis na diggante Papa Abdou Fall. ci combat Siteu Papa Sow. ku ne gis na tamit TFM ak Jamaïcain tey ñu ñëw taxawalal seen bopp Gris Bordeaux wala rëg-rëg ak ki nga xam ne moom mooy guy gi bu dee RTS la gis nañ leen ko def ak Pape Thialis Faye gis nañ tamit 2STV ak Dieye Sène ak yeneen promoteur sax mm. yaa ngi dégg mm. mu mel ni kon télé yi tamit dañu bokk ci mbir mi parce que olof ak wax ku bokk ci gétt gi naan ci mbir mi dañ cee bokk mais nag terewul tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy presse en ligne bi tamit ñoom ñu ngi cee def seen rôle di ca liggéey lu am am solo mën nañ citer fu mel ni Ligue TV ba nga xam ne nekkoon naa fa ñu ngi liggéey lu am solo ci làmb boo ñëwee ci Leewtoo TV bi tamit defe naa lu am solo ñu ngi koy liggéey ci làmb muy ay sites yoo xam ne dañu spécialisé wu pour làmb hmm. te ñu ñëpp ñu ngi def làmb 100 pour cent ah euh, di def promotion làmb ay arène bi ñoo ñëpp ay sites la ñoo xam ne ñoom ñëpp ñu ngi def làmb yaa ngi dégg ay Kewel fa bëri nañ buñ ko dee lim duñ fi jóge bawal bawal ak bawal TV bu Assane Ndiaye yooyu yëpp ñu ngi ci làmb ji ci bay seen waar ak plus télé parce que mbir mi dafa yaatu ndey Coumba Fall du télé yi kese ñoo ko mën a def du site internet yi rek ñoo ko mën a def ku ci ne am na rôle bu war a joué nañ fexe rek ku ci ne joué dafa dafa yaatu loolu la Malick Thiandoum na di wax naan mhm. euh, séentu asamaan du jar boo euh, mhm. nga xam ne mooy Kool ak Pape Thiam taxawal nañ ko démb waa DKR production ñu leen di nuyu defe naa ñoom Pape Sarr la ak gaayam yooyu mhm. ñoom it vraiment boobu ba ñu ngi taxawal ay combat yoo xam ne yu ñi doon rêve la ñu bëggoon la muy ay combat espoir yu dëgër a dëgër di bërki démb wala démb moo ci mu ñu taxawal kóol bu zapp ak ki nga xam ne moom mooy Pape Thiam bu Géejawaay muy combat boo xam ne combat bu war a mën a neex lay doon parce que làmb la joo xam ne daal yaakaar naa ne yàlla nañ ko fekkee tal ko mais xalaat naa ne bu ñu ko fekkee Euh, dinañ gis lam parce que kóol su ma juumul Ousmane Gandigal la mujj a daan mhm. ki nga xam ne moom mooy Pape Thiam tam mu ngi ko mujj a amee ci nga xam ne nii moom moo di caatu yof yaakaar naa mhm. waaw Babacar nag suñ jógee nag suñu laam lañ dem nag su record moom tamit ñëw na tamit si rock tey daal journaux yi rock énergie daal moom la ñuy xëyee laam lañ dem nag si record comme ni ko su suñu laam defee rek ñoom tamit tey xëy lañu ñëw nag si ki nga xam ne mooy roi des ren di Modou Lo nee ñi nag Modou Lo def na 24 combats benn défaite euh, en 4 revanches maanaam si quatre revanche yu mu joxe yëpp benn défaite la si am donc am na réussite 83 pour cent nañu Modou Lo nag un roi sur mesure maanaam xam nañu jaar-jaaram yëpp si carrière am xamoon na day yàgg rek mais dina mës a nekk roi des arènes Babacar. waaw mu mel ni kon vingt 24 combats yooyu mu jot a def ci carrière am boo xoolee victoire yi moo toll ci 20. Hmm. défaite yi di 3 ak benn. combat match nul loolu la jot a def mu nekk mbër moo xam ne comme ni ñu ko waxee rek defe naa ne ba mu fëlee ci làmb parce que da ko wane woon ci fu làmb faydaam ak ci nu muy doxale ci làmb ba defe naa nag fa mujje tey mooy nekk ci sommet làmb ja lekk nekk roi des arènes muy mbër moo xam ne vraiment tamit comme lu ma wax sànq rek mbër la bi nga xam ne ku ñu war a roy la ci làmb mm-hmm. par rapport ak comportement bi mu ci amee ci image am comportement bi mu ci amee ci sport bi ni mu ko ni mu fonke entraînement yi ak ni mu fonke làmb ak li mu ko jaral parce que am na mbir moo xam ne boo ci duggee nday kumba soo ko joxul àqam dëgg dëgg dëgg dëgg la nga ca bëgg doo ko ca am waaw defe naa moom nag vraiment lu waay waxati waxati xam nga ni mot loo moom bokk na ci mbër yi gën a jox ci làmb ba tax na tey làmb jural ko li mu ko jural te itam xam na bu baax a baax fi mu ciy teg tànkam te yooyu yëpp boo ko dajalee na nday kumba moo tax tey mu mën a réussir lii ba xëy nekk un roi des arènes si làmb ji. ok kii di coach am di Pape Mbaye moom nee kañ la xam ni que moom Modou dina nekk roi des arènes mooy bu ma participer si calaf ba gañ a calaf bi nee na si la xam ne jour boobu daal la ne Modou Lo mi dina nekk roi des arènes. waaw parce que nit boo koy tàggat moo ko ay moromam nga yor leen yow mi leen di tàggat di ab entraîneur war nga leen ràññee ku ci ne. boo ko xoolee si doxalinam ak comportement am war nga xalaat ku ci ne ëllëg lan la war a man a def parce que euh, olof ne ku wax feeñ am na yoo xam ne soo ko gisee rek dina am lum lay lum lay wan quoi te Pape Mbaye yaakaar naa ne borom xam-xam la xam na mbër xam na mbër mu nga xam ne ni war na am carrière bu gudd ak koo xam ne xay na carrière am mënta yàgg mm-hmm. su jógee nag si record dañuy dem fi nga xam ne moom mooy euh, Leewtoo TV foofu nag dem Babacar ak ma ak Momaman dem nañu seeti ki nga xam ni mooy euh, waa kër euh, Papa Yade Papa Yade ni mooy te mu génn àdduna si week-end bii nu génn moom nag def nañu ay témoignage ki nga xam ni mooy papaam wax na si hmm. def ay témoignage yu émouvant bu tuur fa ay rangoñ gis nañ tamit papaam bu ndaw assurance euh, bu mbuur tamit papaam bu ndaw def na témoignage ki nga xam ne nag mooy xaritam di doomu ndeyam a neex aussi def na ay témoignage Babacar waaw mu nekkoon moment bu daw yaram parce que boo gisee démb sax man laa fay door a dem ak Leewtoo parce que dama fi nekkul woon mm-hmm. affaire bi muy am moo fekk ak yaay village parce que foofu laa jullee tabaski après bërgi démb bi ma ñëwee nag démb ci laa xëy dem fa mais nekkoon na ay moment yoo metti la parce que xam nga xale bu mel noonu ak carrière bi ñu doon xaar moom ah yàlla jël ko ci circonstance bu mel noonu dafa metti trop trop waxuma la sax dee mais a metti mais nag yàlla mooy ak ci ni la soxlaa yàlla na ko yàlla jégal encore une fois te xare ko aljana di ko jaale waa Rufisque yëpp mais di ko jaale way juróom bu parce que démb li mu ko waxal defe naa ne ah waaw ba tur ay rongoñ mhm. doom ju xaar nga ko ci sa way bés yooyu yëpp lépp ñoo ànd rek maanaam ni guddeeg bëccëg amee noonu la baneex ak naqar nekk ay seex rek noonu la demee mais seeral na ko seer yoo xam ne daal lu mu tubbali ci xolam doom ju ko déggaloon ju bëggoon ay mbokkam daan doxi mbokkam ndax assurance mbër kenn man xamoon lu mbokk papa yaat ndekete moom way juróom bu góor ak way jubu góoru papaay papayaat ba bokk nday ak baay kon moom papayaat doomam la ñu dëkk Mbour parce que nee ma quartier bi ñuy wax Njóobeentaay foofu lañ dëkk ndax ñoom famille bi ñu meloon noo xam ne nii vraiment dafa doyoon waar quoi moo tax démb ndeysaan jooy na mais nag àddina mu tuddee noonu nañ ko muñi te ñaanal ko yàlla yàlla jégal ko xare ko aljana ndax itam am na li nga xam ne nii moom ah su amee ci nit ki xel war na mën a dal vraiment daal ndey kumba moom démb waaw xool tooyoon na fa la nga xam ne mooy ci Rufisque quoi. Mhm. Mhm. Babacar nag si kàddu yoon leen tàggoo di leen jox dig daje suba incha allah balaa boobu muy nuyu sama yaay merci nuyu sama doom Mouhamed Diouf nuyu Astane chéri Khadija Diallo depuis Parcelles Assainies ak Italie nuyu Khoudia Seck chéri Asek depuis Italie maa ngi koy nuyu nuyu Abdou Guèye Baye Fall Diamaguène Papa Cité aussi yaa ngi si biir nuyu ki nga xam ne moom mooy Sophie Nour. te pour na waajal du mën a ñàkk faw mu ñu dem mu jox ñu Serigne bi le roi des arènes wala le doux roi des arènes Serigne Bombardier ñu koy nuyu di profité di nuyu waa Mbour yëpp rek xam nga di ñaanal ñëpp jàmm di nuyu tamit suñu soppe rawatina waa Petersen comme ni mu ko waxee sànq Abdou du ma ko fàtte maa ngi koy nuyu waa ah, borom daal yi di nuyu ñoom Mor Diouf xam nga ñoom Babacar bu Móot Lama gaa yëpp ñoom Jib Seen ah ñoom ñëpp maa leen di di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi suivre Youssou tamit suma ak suma xarit maa ngi koy nuyu l'international ak Saliou Ciss ñoom ñëpp maa ngi leen di béggee di ñaan daal Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm fans club Leewtoo ak guy la suma rakk la suma lépp la Rimka nag di ko ñaanal jàmm ak ki nga xam ne mooy las las création maa ngi koy béggee bu baax a baax waaw du mën a ñàkk a damaa bëri ay soppe nday Kumba Fall tëdd noonu dama bëri ay soobee macha allah yàlla na jàmm yàgg yow tamit di la nuyu di nuyu sa yaay mère Sow di ko wax ne bëgg naa ci moom ndax gis naa ni may nemee ko ak ñaan yi kon yaay booy defe naa ne yaw tamit yàlla na say fan gudd nga fekke sa njëriñu sët boobu Mouhamed barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw sa série boobu bu suba incha